jamono ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm tey nag suñ deuxième phase ñuy toog ak ki nga xam ne nag mooy jëwrin Baye Laye euh, saa su nekk rek ñu ngi insister fi nga xamante ni mooy kër Njambe yàlla jaam ñi comme ni ñu leen koy waxee rek ñuy découvrir lan mooy yàlla yàlla di ko dégg nit ñi di ko waxtaanee ñii naan dañuy gis yàlla ñii naan fan lañ ko gis ñi naan gis yàlla mënta nekk tey nag ki nga xamante ni mooy jëwrin ñu koy wax Baye Laye Baye Laye lay nuyu. waaw sëñ Jili ñu ngi lay delloo nuyoo bi. Mhm. di la ziar di ziar àdduna. Mhm. di ziar it képp koo xam ne yàlla dogal na nga mën a gis vidéo bi. Mhm. di ñaanal waa dëkk bi jàmm. di ñaanal waa réew mi jàmm tey ñaanal waa àdduna jàmm. ndax bu jàmm amee rek lépp dox. kon yéen waa étoile jamono it. ñu ngi leen di siyaar di leen màggal di leen ñaanal yàlla na yàlla mottali daal. waaw yàlla na yàlla mottali te def barke ci liggéey. yow yaay jëwriñ waaw moom la moom la yàlla dogal. Hmm. waaw yéen yàlla da leen yónni wala lan. ñun yàlla mun nañ ne def ñu yónni mbaa bokk def ñu yónnee def ñu yónnee si Joal waaw. yàlla daf leen def ñu yónnee si Joal bu hmm. wër. Hmm. waaw parce que defar nañu tàggat ñu. ne ñu demal leen ma béréb sàngam ngeen toogal ma fa. lii ma def ci yéen képp ku leen nangul ngeen def ko ci moom. muy lan muy leeru la ilaha illallah ak secret bi. muy lan muy li yënanti yàlla Muhammad doon def ci saxaaba yi. sallallahu alayhi wa sallam muy lan muy lu mu li sëriñ Touba. Mhm. doon def ci ña ko toppoon. Mhm. parce que nee na li may def ci nit ñu topp ko su ma ko defee ci xaj nit ñu topp ko. Mhm. ak saa kon looloo tax ñu ne la ñun dañ ñoo yebal si. kon dañ ñu yónnee si. yónni wuñ waaye dañ ñoo yónnee si waa dëkk bi ak waa tund bi. képp koo xam ne nangu na lii. ñu def ko ci yow. man nit ñi dañuy dégg baatu yàlla yàlla. mu nekk lu jaaxal ñëpp nit ñi di leen wër si internet di leen interroger di laaj lii diine ju bees la wala lu ñuy door a dégg lii lu fi yàgg la wala lu bees. dama naan lii lu nekk la te yàgg. Hmm. ndax lu tax mooy jaamu yàlla la. yàlla yàlla maanaam jamono bu xew rek ak tur bañ koy woowee. Hmm. ndax jamono yi Muhammad am na nu ñu leen doon wooyee. am na nu ñu leen doon wooyee jamono yi Serigne am na nu ñu leen doon wooyee. jamono yi njàmbe am ñu ñu leen di woowee. Mhm. waaye mu méngoog la yàlla waxoon yonent yàlla Muhammad. muy lan mooy inna lazina isbulaa mhm. naka gaa yooyu ñuy woowee yàlla yàlla. Mhm. mu ne ulaay kaw mul muxlisiin ñooñu ñooy way sell yi. kon bu tombee mu kàddu googu yonent yàlla Muhammad ñëw. kàddoom tombe ñun ñu ñëw ñu woowee ñu ko. dañ koy sante yàlla. ah yaa ngi wax ay aaya gaa yi dañ lay seetaan de mais est que lii nga wax ni si yàlla yàlla la wàcc. ma ay alxuraan bu wàcc ci yàlla yàlla. parce que lu tax mooy ñi ñuy wax rek mooy yàlla yàlla. Mm. dañ ko jël jagleel ko ay nit rek. Mm. waaye waroon nañ mun a ki koy jël di ko jagleel nit waroon na xool boppam moom. Mm. parce que tey jii lan mooy yàlla yàlla lan moo tax ñu di leen ko tuddee. mooy tey yow sa doom yaa koy jur. Mm-hmm. mais nga tudd ko mu am tur. Mm-hmm. mais tey nga jël ko yóbbu ko muy dem géej nga tuddee ko mool. waaw est-ce que moom mool la. Mm-hmm. mool la pêcheur. lan moo tax ñu tuddee ko mool. li muy dem géej. très bien ñun lan moo tax ñu tuddee ñu yàlla yàlla. yéen li ñuy yëngu ci yàlla. bu da ngeen léegi ni gis yàlla. waaw hmm. li ñuy yëngu di wax yàlla fu ñu toll di wax yàlla ak ñu ne ñu ñëw ñu dee boo leen gisee yàlla yàlla yàlla yàlla rek lañ lay wax. Hmm. looloo indi yàlla yàlla bi. Hmm. mu ne gaa de. foo leen gis rek yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla rek lañ lay wax. looloo indi yàlla yàlla bi. waaw yéen li indi yàlla yàlla bi loolu lu am solo la mais. damay ñëw ci entre lu xaraam ak lu dagan. waaw yéen damay gis ñu bëri dañ leen di tuumaal que da ngeen di jëfandikoo alcool da di tuux da di def leneen loolu dafa dagan wala lan la waaw xam nga tey jii ñun du ñu man de du ma lii dafa dagan wala dafa araam danga ko ñemewul xam nga lu déedéet ñeme naa lu raw loolu wax ko ma dégg parce que xam xam nga lu tax hmm. mooy ka koy def ka koy def hmm. kooku bu gënee ci moom hmm. gën na ci mu gën na waaye ka nga xam ne bu ko defee gënut ci moom gënul ndax lu araam mm. du sàngara rek du tux lekk ba suur sax dafa araam mm-hmm. diine def ko bañ dëgg la diine def ko bañ docteur yi bañ ko yi bañ ko mm-hmm. kon du sangara rek araam mm-hmm. jàngkat yi alxuraan yi ñu ngi koy def parce que ñoom ñoo ne fen buy defar moo gën dëgg buy yàq te pourtant alxuraan moo ne alxuraan moo wax ne waylun lil mukazzibiina xura nga safara fenkat yaa ko moom waa léegi naka la ñu ñoom ñu wëlbatekoo ñu ne fen buy defar fen fan la musa defar ci àdduna ah looloo tax ma ne la du ma dagganal mbaa may araamal waaye képp kuy def la ngay def bu gënee ci yow baax na waaye bu gënul ci yow dafa araam te nag sàngara araamut xam nga ku nekk def la la saf xam nga lu tax araamul waxuñ ku nekk def li la saf ku ne na def li ko war sàngara araamul araamul moom la bàyyi laay wax jëwrin maa ko wax man maa ko wax mm. wax nga ni sàngara araamul nag ñaaw voilà lu tax ma wax ko mm. mooy sàngara amul fu mu dox ba fekk nit ne ko naan ma mm-hmm. yow yaa liggéey sa xaalis nga am ko mu lew la doom nga romb meew romb boisson romb suukar romb lem dem jëndi ko sangara su araam amee yow yaa araam yow mi ko dem jëndi naan ko yow ya araam mais buteelu sàngara ba araamul kon yàlla yàlla képp kuy naan sàngara yow sa wàll boobu da ngaa araam kon yéen bu yow yaa romb loolu dem naani ko mhm. yow yaa araam bu araam amee foofu mais la moo tax yéen araam de mais su fekkee araam am na ca ñu war ko juge mhm. mi ko dem jëndi yaa araam parce que lu tax mooy yàlla yow mal xiyaam mhm. amut fenn fu yàlla di taxawee atte butéelu sangara bàyyi yow mi ko doon naan mhm. yow mi koy naan lay atte mhm. kon yow yaa toogoon ci araam mais butéel ba toogut ci araam mhm. yow mal xiyaamu butéelu sàngara dafa am am na yow mal xiyaam boo xam ne ay butéelu sàngara fay daje yàlla atte leen mais ñi ko naan xam nga yow da jeexal wax ji hmm? mais ñun nag naan sàngara bi léegi voilà léegi nag kon ka koy def kooku noonu bu araam amee moom da ngeen di naan wala du ngeen man de du ma naan da ngay indi nan dama généraliser wala du ngay indi nan non man li askan bi di li wax lolo ma fi indi man duma nan te yel len nit man nako wax nit ñi moy hmm. sangara ba muy am hmm. boba est ce yeena ngi doon deg yalla yalla ak bar yi ne ci dekk bi ndax yalla yalla ya ko mom ña ngeen di tassel ñu mandi ndax ay yalla yalla lañ xam nga amna na ay xam nga amna ay jànkat alcorane yu mag ak ah, sa amna ay julit yu nan te muy dëgg mais yéen dama leen di laaj mu yow yalla yalla da ngeen di naan wala di ah man de nanuma man baay laay du ma naan. mais ñoom moo jël responsabilité. di du ay loolu du responsabilité tooñ la. xam nga loo xamalut nit ki nga wax ko da nga ko tooñ. Mhm. te ñun loolu la ñu yàlla tere te duñ ko def lépp lu ñu yàlla tere duñ ko def mooy lépp lu may waxal nit daf may biir. Mhm. su ma ko fekkoon mu ko def ma ne la diw de fekk naa ko mu di ko def. Mhm. te bu toogut duma ko wax parce que day mel ni jëw la te jëw dafa araam. du ma ko def. barke borom Touba xam nga lu tax. mooy man euh, nekkuma fi ngir atte kenn. yàlla def ma fi yónni si wala mu yebal si ma fi mm. ngir ma gindi jaam ñi dimbale leen mm. kenn ku ci ne ma fekk ko ci li muy dund mm. ma ne ko lii ngay dund nii de boo ci boole woon lii mbaa nga defee ko nii mbaa nga topp lii amaat na dina la jëriñ mm-hmm. man loolu laa xam ñu gis ni nag tey njàmbe waaw avant ngeen di ñëw Joal mm-hmm. ñu gis ñu bëri rallier nañ ñëw si yéen mm-hmm. ñu leen di jiiñ ni yàlla yàlla yi boo ci xasee dugg. donc dañ lay tàqaleeg sa yaay dañ lay tàqaleeg sa papa dootoo nekk en cent pour cent da ngay beru ci ñoom loolu yan leeral nga ci indi. Ah, loolu de mooy nit ñi rek comme li ñuy wax rek foo dégg mbir dina am ñoo xam ne danañ topp si ginnaaw di yàq. Mm-hmm. loolu adduna la noonu lay doxee mm-hmm. yonent yàlla Muhammad nit ñi dañ ko dañ ko doon wax ne. Mm-hmm. day njabaraan. mu doxloo gumb xoolloo gumb ga dox doxloo garab ga ñu ne ko du dëgg mhm. yonent yàlla Muhammad xëy na mhm. wax waa Makka ne damaa rañaani woon dem juróom-ñaari asamaan ñu ne ko yëkkatil sa tànk mhm. mu yëkkati ñu ne ko yëkkatil ba ca des mu ne su ma ko yëkkatee daanu ñu ne ko yow yonent yàlla Muhammad dina dem di daanu kon kuy dem juróom-ñaari asamaan kooku dana yëkkati ay tànkam di daanu waxoo dëgg loolu waxuñ loolu kon ñun ñi tamit tey jii bu fekkee ne nit ñi dañu ne ñun de ku ñu topp dootoo topp say waajur wala dootoo topp di mm. déedéet parce que ñun ki ñu gëm mm. topp ko te mu def leer gi ci ñun mm. balaa ngaa jokk ci moom lu leer la lay wax loo am lekkal liggéeyal def sa bopp fonkal sa ndey fonk sa baay ku la tere sa tere la sa baay lu la digal du la ko defal barke la ilaha illallah mm-hmm. mais man damay gis lu bëri. muy wax ni lislaam jàmm la. Mhm. ma koy seetaan moom euh, kii amaguñ chance daje ak moom nag. mais muy wax lislaam jàmm la mais day dem ba ci biir di critiquer yonent bi di wax ni xeex na tuur na deret nangam nangam te loolu du l'islam. mais est-ce que loolu loolu loolu yan explication li ma ci am mooy. li hmm. lim la wax lislaam jàmm la. mais tey suñ ñëwee ba ci lislaam ñu war ko wax. war ko waxtaanee. Hmm. est-ce que dañu war a yem ci rek waxal nit ñi lu baax luñ defut. ah waruñu waxal nit ki lu baax wara dañu wara wax nit ñi nit ki limu mu def lepp muy nit ñi gisse ko lu baax ak lu bon parce que yoonte yalla Muhammad ba muy tour deral hmm. est-ce que lu bon taxone mu diko def mais kon ku ko wax da nga ko kawel hmm. ñëpp xamul déedéet tout critication ah, fay won nit ñi ne hmm. Ki lamu doon def mais loolu motax mom mu am sañ-sañu def ko te yalla top ko ci dara mais kon lam doon xex jarnako mais lan la doon xex est-ce que julli la est-ce que wor la est-ce que nat asaka la est-ce que saraxela l'islam la doon xeex. mooy julli ak woor ak déedéet julli julli ak woor ak du du l'islam. bul foofu nag. non loolu du l'islam tey yow da nga doon gis xare yoo xamante ne nit ñi dañ doon julli ñii di xeex am ñu leen di garde buñ paree ñeneen ñëw xeex ñi garder leen. loolu yëpp léegi ma laaj la ñoom ba ñuy julli ban saar lañ doon tari. Mhm. ndax alxuraan balaa ñu ko muy wàcc ci yonent yàlla Muhammad xare Badar dafa paas. Mhm. léegi ñooñu ba ñuy xeex di julli. Mhm. ban saar lañ doon tari laaj leen ko ustaas yeeg imaam yi Baye Laay jëwri nee na xare Badar ba avant boobu fekk na alxuraan wàccagul nga wax loolu Baye Laay moo ko wax. waaw man nag man ci li ma jàpp man mooy alxuraan wàcc na lu yàgg te xare amul. déedéet alxuraan wàccul parce que lu tax mooy yonent yàlla Muhammad sax génn na àdduna ba mu am fukki at ñett ci lañ dajale alxuraan. Mhm. Ousmane tax ñu jot ci alxuraan. Mhm. waxuñ li mhm. Seydina Ousmane moo tax ñu jot ci alxuraan boobu ana Muhammad boobu ana xare xare passé na Ousmane Muhammad génn na jamono bu yàgg. ñu daal di dajale ñu daal di dajale alxuraan bi mm-hmm. daal di ko def téere ñu mun ko jàng ba di ci julli di ci woor di ci natt asaka di ci sarax. bàyyi laay est ce que yéen jotul nag ngeen gëstu jiwaat xam-xam. ndax la parce que lii nga wax nii lu doy waar la ay xare badar ñëw na te li kii wàccagul loolu loolu bàyyi laay yow loolu xam-xam la. wax bu wér xam-xam la parce que lu tax mooy tey ji am na ko xam ne xamu ko woon dafa defee ne woon ne moom Mouhamed ba ne ko yàlla yónnee rek ci la alxuraan wàcc. Mm-hmm. te pourtant alcorane par aya par sar par sa ismu isib sa da don wacc deug la par isib da don wacc ci alcorane mais kon munta waccando ben bes munta waccando ben wer munta waccando ben at. deug na ci sen serigne bi ba tey un jour mu saboté kaba gi saboté gu metti sax. man parce que ni xaw ma maara day taali ñi meuma ci jaar loolu yeen ba pare ni da ngeen gëm l'islam te nanguwu len acc waaw loolu la la. ñun duñu ñowé di acc yalla mo ne. yalla mo ne yalla mo bëggul aj yalla moom waaw ci bi ñuy def hmm. ni ñukoy defé yalla hmm. yàlla bëgg ko parce que lutax moy jaamu yalla la ko nit ñi def te aj jaamu yalla taxu ko jog lan mo tax a aj hak sa yakun hmm. li tax ya, aj jog moy manam tay nit ki wara tarbiya wu ngir jëm ci yalla moy yow mi wara a yar sa bop ngir buñ la joxé leeru yalla nga yor ko lolo tax mu jog mu ngi melni entraînement taxu ta doon joueur ñaata nit ñofi entraîner te mosuñu am salaire joueur kon loolu mo indi kaaba mo indi julli mo indi wor mo indi nat asaka mo indi aj makka te aj makka lu tax du jaamu yalla moy hmm. khalis akoy def hmm. te jaamu yalla khalis du ko def hmm. jaamu yalla khalis du ko def ndax ki ñak def koy def ki am da koy def wala deug la wala ñu am khalis rek a war a jaamu yàlla saraxe ci jaamu yalla du jaamu yalla def lu bax ak jaamu yalla du ben sarax bu dé jaamu yàlla kañuy sarax mom, xana warté jaamu yalla da koy manké ak jaamu yalla nekul benn du benn mhm. def lu baax ak jaamu yalla du benn mhm. sa yéré tilim nga fot ko mhm. lu baax la wala jaamu yalla la man ké dama lay laaj fi mu ah, parce que gu tilim nga fot ko néna du jaamu yalla du jaamu yalla ndax ru ndax ndax gu tilim googu est ce que yow yow yow yow njàmme ngay campagnal al mu toll man pour gaa yi ñëw fii raam bëgg a gëstu luy jaamu yàlla nga indi fi leneen lu bees nga dem jébbal leen man xam nga ku may campagnal hmm. mooy ki nga xam ne tey kenn ku ci ne lala war nga war ko wuti moom lay campagnal waaye benn côté nag dinaa ne la njàmbe lay campagnal parce que moo yor li yàlla soxla ci jaam ñi bàyyi laay kon dafa mel ni li ñu cërale woon ci waxtu wi jeex na xanaa dama lay bàyyi nga tàggatoo rek après ñu ñëwaat waaw boo boo ñu ko mayaatee beneen yoon ñu ñëw parce que ñun moom duñ doyal waaw baax na ah xanaa di leen jaajëfal rek mm-hmm. di jaajëfal adduna mm-hmm. ndax li gëm nañu ne dina dem ba wër aduna parce que lu tax njëriñ la ndax euh, li yalla di wax rek wala sayyidna muhammad wax ko bu mhm. def ne talabul helmu lil ahdi ilal mahdi mhm. waaw mom la la waaw njàmbe mu ne gu kenn ku ci ne war na nga sakku xam-xam mhm. ci ba ngay dund ba ba ngay mom mohammed ko waxoon ak ah, sa kon wax njàmbe nag war ngeen ko mu téere de mam lay taw indi ay kër yu ya. ay wax yu bees téere téere lu ko gën non mais mais moom na bind rek. am na lu gën parce que yàlla ci boppam amul téere ndee nee ngeen Seydina Mohamed moo indi téere. Mhm. kon yàlla amul téere mu ngoon ak njàmbe. Mhm. bu fekkee nag téere bi yàllaa ko moom kon Seydina Mohamed it amul téere. Mhm. te téere bi nag yàlla moomu ko Seydina Mohamed moomu ko. kon moo ko moom. mooy koo xam ne yàlla bind na la ci nga bokk. yàlla def ne. wa maa farax naa min kitaabin sey an defal naa leen ci téere bi lépp pour ngeen attewu ci kon yàlla moomatu ko yonent yàlla Muhammad moom boo fi jógee di nga jàpp julli ko man déedéet ndax la ni yëpp ci alxuraan du ma jàpp li ngay wax yëpp ci alxuraan nga koy jëlee parce que xam nga lu tax mm. Mm. mooy ña koy déglu mm. ci alxuraan nga leen mën a wax pour ñu xalaat dañu boo leen waxee ci olof kese du ñu xalaat. mais xam nga loolu ñàkk bind bi ngeen ñàkk bind. moo ñun ñun bu ñu bindee. dañuy méngoo ak ñoom. bu ñu bindee du amati sens nit ñi di gestu li ñu yor. mais dañuy ñëw wax la nga dégg parce que yàlla def ne wali wama arsalnaaka rasulan illaa bi lisaani qawmin mm-hmm. du duma leen yónnee yónnenti lu dul ku ngeen déggantee làkk mm-hmm. mooy kuy wax olof nga dégg kon li ñu leen di wax dañu bëgg jaam ñëpp gëstu ko xalaat ko. sànq li nga wax ay arab la. waaw parce que xam nga lu tax. Hmm. ma tekki ko hmm. bu ma ko waxoon noppi rek. Hmm. kon li ma wax du am sens. mais heure bu ma ko waxee dama koy tekki ndax xam naa ne wa ma arsalnaaka rasulan illaa bi lisaani qawmin kon li ñuy wax adduna daal. nañ bàyyi xel seen bopp. bàyyi xel yàlla def ci ñoom. te fexe nag di seetaan. dallu Joal étoile jamono moom barke borom Touba lu am solo la ci réew dëkk bii mhm. ak ci réew mii ñu ne ndax Sénégal réew la moo xam ne mhm. dafa jaxasoo mhm. fii laa gis ñoo xam ne ci diine dañ naan di wa doonu diw di wa doonu diw te diine amul doonante ci deret diine amul doonante ci mag diine lu am doonante mooy wal xolama wa rasatul anbiya la yonent yàlla Muhammad waxoon mhm. borom xam-xam yi ñooy donnu mhm. te këru diine yi ne Sénégal laa mhm. foo ci dem ki mag mooy donnu keneen ka ca ka fa jóge ba pare na ña ñooy donnu nag ña sos tarixa ya ñooñu doon ñu ay xalifa léegi ña leen donnu bëgg a doon xalifa kon ñooñu kan lañ donnu kan lañ donnu bu ñu nax ni ñi imaam yeeg ustaas bu buñ nax nit ñi diine ak l'islam barke laa ilaha illallah duñ ko amee ci njàng duñ ko am ci woor ci dëgg lañ koy dëgg nag mooy laa ilaha illallah ak secret bi mhm. xam yàlla xam sa bopp xam sa borom macha allah olof def ne xam sa bopp doy na jaamu yàlla mhm. kon gars yi ñu ngi leen di ziar di leen màggal di màggal adduna yëpp di leen wax ne ngeen dégloo ko xel te bañ ko dégloo xol mhm. ndax kat xel mooy jëriñ jaam yàlla moo ñu ko wax yàlla moo ne. Mhm. man borom xel yi laa soxla. Mhm. kon Baye Djily ñu ngi lay ziar. yaa wax na ko ci alxuraan. waaw wax na ko ci alxuraan. <laughs> moo tax man leen macha allah nag faaw ngeen bind parce que li ngeen wax yëpp mu ngi ci alxuraan kon nag <laughs> ñu ngi leen di jaajëfal di di leen wax ni Daalu Joal nii la. chaque jour Sénégal a ngi nii fu nekk la gars yi di fël kon nag mu nekkoon euh, étoile jamono ak Baye njaga ñëpp ci biir macha allah.